askanu Sénégal rawatina askanu làmb jamono ji nekk ci naqar ak diis gannaaw génnuk àdduna ki nga xam ne moom moo di Boy Bambara moom nag génn na àdduna ci ajuma ji laata juróom-ñaari waxtu di jot ca Parcelles Assainies ca Dakar gannaaw jàngoro ju yàgg joo xam ne moo ko tëraloon moom Boy Bambara moomee nga xam ne ràññe woon nañ ko lool ci wàllu ko làmb ak jaloore yu rëy yoo xam ne def na ko ci wàllu ko làmb waaye tamit ay jàngat yu bëri yoo xam ne itam doon na ko ci def am ay ndaw bëri yoo xam ne tàggat na leen ci wàllu ko làmb xarañte nga xam ne daana ko wone ci wàllu ko làmb moom Boy des na ko jébal boromam suba ci samedi ji bi équipe bu 24 actu yépp di ko jàlle njabootam te koy ñaanal yàlla xare ko ci àjjana yi gën a